Eh, maa ngi leen di ziar Papito Kara la donc dafa am benn expérience boo xam ne dama ko dund jël bëggoon ko partage ak yéen du ma nag mais bëgg naa ko partage ak yéen patriote laa buy wax dëgg di dox tamit ci dëgg di teewal sama askan ñu ci bari dëgg lañu bëgg kenn mënul nettali sa gént nettali sa géntu moroom mais mun nga jottali sa kàddu jottali sa kàddu moroom alxamis 28 juillet la rovie affaire de fen ndekete yoo am nañu siisu créé dossier jiñ ma fen benn femme moo ma woo na ma papi ci lan nga ne naka job bi ba mi ngi cool vraiment temps yi yaa fi ne sama tur mooy Khadija New York laa jóge indi produit anti xeesal bëggoon pip nu muy demee ñu joxante rendez-vous playa ngir mën a dóor contre yi ndekete yoo jot na ndigal ngir ma dem dóori ceebu jagaa bi la ma dund fa tribunal def naa fay retour de parquet central ba plateau ñu far ma dóor mandat de dépôt mën a biir 100 mètres garde bi futti ma yaramu nen ma sol sama yére foog ne jeex na rek mu wat ma nel ma rentré chambre 13 seen gaay yëpp si dàmbaloo yi ma xam ne jihad bi door na kon faaw ma doon ci champion yi benn fan rek laa fa def ma xëy ñu miitama 46 bro bu moom moo fa jaar kooku mooy sama grand Nasir ma def fa une semaine Ousmane Diagne ñëw fekk si ma nañoo bokk benn kaano seen dóori yem na ma chambre bi nag dangay waaru am na ay fekk ami kanaare mais am na ñu cool comme Jean Paul Ibrahima Badiane ajaarama sa moroomu doom moo lay fonto nga dóor ñu fëgg porte garde bi ñëw laajta lan la nga sikki sàkk ñu yóbbu poste ngeen dem tàmbalee layoo mun nga am dëgg te doo si génn ñu boole dóor wala ñu braqué ba une semaine nga soog a génn ru añ ñu seddal wankaar yi maanaam koppu ceeb lu mu ndaw ndaw moom ngay dóor même bu dee danga ko xeeb ndekk beeg añ bi li ñu rawantee matul waxtu fi ngay toog di añ ñu indi reer li jar na ñaxtu heure julli ñëppay pare waxtu wi moom kenn du ko faat ñu miit ak télé bi bilal bi nodd doo dégg kenn ko yëkkati baat après timis boo cee bi woote gars yi commencé bind bon yi ñi bind kafe ñi bind meew ñi leboon bindu fa yàlla boor yi 23h ñu tàppe tëdd waa rang-rang di jël matelas yi ñi am place te di jaaxaan ñi si des moom dañuy paqueté diggante boobu comme xare badar faw nga doon góor pour mën ko dékk lu ne ngay daj ci xeeti fa ngay xamee dëgg yaa ngi ci natt da ngeen gëm yeen droit de l'homme ok man mënuma ko gëm ñu koy wax sax gëmuñu lenn ci seen làmmiñ rek la yem fajar teer gardi yee la yàq say nelaw ndax appel nga na bëre profito génn taxaw tuuti ñu ne la wàccal léeg-léeg ñu woo sa tur doo ko dégg sax ndax coono ñu ne la xee taxawal ne sotti ndox yokku la coono nattu ci biir nattu weesuwul jël man bu feebar gis nga 100 boo fa tawatee boo amul sens doo dellu seen kër mani léeg-léeg nga tawat dem infirmerie ñu jox la ñaari doom lu la mën a dal moom ngay naan même bu dee dangaa yoom yéen juge yéen lay waxal seen MD yi dee leen ko xool te xam na fii loo fi mën a signé di nga ko signé fële bàyyi si xel yenn feey lu muy wuti krok wala ñu yàgg fa da leen di neex flagrant nga jël wiiro krok ñu far ko tëdd ba pen ba jeex Jelman ragalul kaso de krog yu yàgg yee dul dëgg luñ mën a def atte leen gaaw même bu dee dëgg dinañ ko tëdd léeg-léeg tàngaay bi tar Jelman yëpp ñaq bay siit danga leen di xool sa xool di jeex ana dund jel lu ko gën a tiis léeg-léeg robinet yi tëj ba ñetti fan doo am ndox doo tala sangu waxuma la naan nga foog na lool kenn du ko wax chambre neuf moom walla dix la fa xew doy na ma tiis dem naa sit naa naka waar ña fa des ñëpp a ngi si tiis rëbës rek ngay gis correctionnel bu tëdd cinq ans déggoo parquet bay xalaat enquête rax si dolli di dundee jaga li ma gën a metti jouru màggal ceebu ceccax lañ ma jox ma ubbi na lii lu mu doon ma liy ceeb laam wala cox donc voilà gars yi lii dama ko def juste rekk pour ñu gën a bàyyi xel jelmaan yi rawatina les détenus politiques defuñu dara yoon mënul ñàkk ci réew mais bu ñuy jàpp ñu sàcc sàcc bu ñuy jàpp ñu jàpp sàcc yi ak trafiquant de faux billets yi comprendre nga ñu bàyyi làq doom dóor doom loolu doxalul am réew am réew ay àqi doomu aadama yu réew mi gàddu rek dina téye am réew maanaam dajale ay àq cim réew di lekk riba ak di jàpp ñoo xam ne ay góor lañ defuñ dara nga leen di toroxal loolu mun na téye am réew ba fi mu waroon a àgg du fa àgg nañu libérer les détenus politiques rëbës ña nga xam ne dañ leen a jàpp flagrant délit ñu def nañ leen atte da ngay gis correctionnel boo xam ne day def quatre ans trois ans ci kaso bi atte guñ ko loolu pour lan lan ngay enquête ci quatre ans cinq ans bu fekkee dafa am dossier bi dañ cee laaj ay enquête quatre ans cinq ans lan ah mais lii dafa doy waar dafa metti donc nañ leen dimbali ngir yàlla wa rasulihi ñu àtte ñi def ñi ñi deful ñu ñu baleen di nag dama ne woon naa ko jàllale fa defee ngeen jàngee si yéen tamit jox